السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ابني العزيز Maxtaar jàng naa nas bi nga ma yónnee mu jóge ci markazil falak ak duwali eh, seen njiit Mouhamed Sokat Ouda woo na ma téléphone ci ci guddik alxames xanaa alxames ci guddi déedéet alxames ci guddi wala déedéet ajjuma ci guddi ajuma ci guddi ba sedd samedi la ma woo ma laaj iidu iidu fitr ci Sénégal léegi waaye ñoom lii ñu wax nga xam ne dañoo wax ne ñu gis lu leen di nuru weer xaj nañu gis taw ko mosul xosaan waaye weer wi moom bu jant bi so fekk na mu suux ba pare ba tax na ñu dog bañ a woor samedi dañoo juum ñi war a sant dañoo juum loolu mooy li nga xam ne adiinu llaha bi alladi adiinu llaha bi te maa ngi koy maa ngi koy wax ca kaw képp kuy eh, képp kuy ab jullit te ko ci wax jële bokk li nga xam ne adiinu llaha bihi yowma alqiyaama mooy ñi woori samedi war na ñoo fay bis alladi adiinu llaha bihi yowma alqiyaama mooy weer ci senegal gépp senegal gépp ci dëkk senegal yépp bi jant bi so fekk na weer suux na ba am lu bon bon benn minute ak nangami seconde ci suuf jant bi a so loolu moom wóor ne ma amatul may bu fekkee biñ ne heure sàngam ci la timis di jot wax heure ba daa jot ñu daal di nodd timis daal di liqaam te ñuy nodd ko liqaam demuñu xooli jant ba dañoo calcul jox leen ñu nongu bu fekkee buñ ne heure sàngam sa takkusaan di jot bi bi heure ba jotee dañoo noot takkusaan julli te demuñu ñu natt ker ga ba xam ndax mat na zulza wala xawam déet waaye dañoo nangu xisaabaat jant bi fenk naak fajar xar naak ak bi sona mooy naftu xisaabaat yi wax weer wi fu fekk naak suux naak mi ngi ci ko asamaan si nekku fi li ma wér mooy ajjuma gannaaw bu jant bi sowee weer nekkul woon ci kaw asamaan bi benn ci Sénégal fenn benn dëkk loolu moom mën naa ko ci kaamil mu ngoog bu ko defee loolu nga xam ne moom la waa markazul falak ak dowale wax ne mën naa am Mauritanie ak Sénégal rek Gharb Afrique ñi ci wari bi dañoo gis asaar bi ndax dafa nekkoon ci place weer wi mu xaw a nuroo loolu weddiwuma ko waaye li ma wóor moom mooy weer moom ku ne gis nga ko tam gisoo weer loolu moom mënuma koo sakk mi mel ni rek ku jógoon trois heures du matin dinaa fi la di xiyaam ñu ñëw ne la jant bi daa fenk nga xool sa montre muy trois heures di matin ne la wóor ne kii dafa juum bu la nee màcc teg sama bëtit da nga xam ne xanaa njuuma la gis waaye gisul ab jant ci trois heures du matin te loolu lépp calcul doo koy joxe masalatu bala noo wari gis weer d'accord naa ci ca xadiisu suumu li ruyatihi wa aftaru ruyati waaye nag loolu li muy tekki tekkiwul ne bu ko bët gisul rekk newu fi tekkiwul ne itam bu nit ne gis naa ko rek mi ngi fi nit ñi dañuy juum taarix wane na ni ñu bari dañuy juum ci weer wi di gis ay biddiw di ko tudd ay weer loolu moom takraar na lu bare bare bare ci taarix ala xaal bépp jullit bu dégg kàddu gi te diineem ñor ko te yàlla nattu ko ba mu julli samedi nga xam ne bisu samedi bi maa ngi seer ci kanam borom asmaan suuf ne bisu samedi bi ci koor gi la bokk dañoo war a fay bis ku gëm baax na ku gëmul baax na kenn ku nekk la ngay def yàlla nga ko defal seqoo ko kenn yow ne kenn niwu ca man damay jottali rek li ma yàlla xamal ma war koo jottali wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu